dossier bi day wax loo xam ne totalement lépp dëgg la parce que man du xaw ma caaxaan man dossier ni mu ko waxee moom man jéemuma ci xam dara parce que ça ne me concerne pas intéressé wu ma la mu sekk ak Ousmane Sonko biir suite Beauté man ça ne me concerne pas man benn principe bii ju moo tax may xeex. Mhm. ma gis ko moom ñu néewal ko doole man mani du fi amee sénégalais ak sénégalais la nañu leen yóbbu procès ñu àtte leen waaye dossier bu ñu dugal sous le coude te ma nekk fi ma gis ko mu nekk loo xam ne day doon un précédent dangereux pour cette nation ma ne du ma ko seetaan parce que xamuma ko woon moom bay ànd ak moom police muy porte ji plainte donc précision boobu c'est malsain et c'est mun na ko wax tey précision boobu mënoon na koy wax depuis des mois fekk yegguñu fii ci combat bi parce que man combat bi man xam naa ni man fekkewuma

mu métti ci moom lool ma ñëw dugal ci sama sama bakkan teg ci sama dugal ci sama bakkanu njaboot dugal ci sama njaboot bakkanu askan jël sama di rëppi rëppi di def ay aller ñëw di ko defal plaidoyer pour casser la glace que nit ñi xam ni que xale bi waruñu ko neenal waruñu ko néewal doole maintenant ni di nee ko mooy mooy dem moom kese waxul moom dem moom kese waxul loolu dafa ne mën na dem sans ñun waxul loolu de dafa juum dafa juum waxul loolu de Françoise daa juum communication am la juum Françoise waxul waxul loolu de dafa ne avec ou sans yéen waaw mën naa dina combat bi ba mu sës loolu la mer daa juum daa juum Françoise coupel foofu daa juum Françoise. man li wax man xam naa ko moom. dafa juum dafa juum ci communication bobu xale la. Gabriel am na yu mu wax ci man dinaa ko déglu doo ko parce que man ay yëfu xale yu ndaw yu reewantu man man duguma ci te duñ mako duñ ma ci polé parce que man duguma ci Adji Sarr parce que lenn dama dugg pour les principes je me suis battu pour des principes et ce combat je l'ai gagné parce que c'était une bataille d'opinion. maintenant elle peut oser s'asseoir devant 16 millions de Sénégalais pour me dire.

man du euh, xeex bi mu xeexal Gabriel bijou mhm. Gabriel kan moo ma ko wax. Ah. pour xeex nañ de. ma maa ngi xeex Gabriel xeex na Gabriel wax na ma yeneen nag ba jox ma ay preuve. kon ma tëyee. yaa may dégg. Mhm. man you don't mess with me. Adji buy Adji buy Gabriel nobody messes with me man kenn du mess ak man parce que damay lay damay ñëw daal sa kaw mu métti dama ne. lii début la gabriel kan moo ma wax ni man dama doog aji sa ma toog ci kawam manan déet ne waay appel bi nga xam ne waa kër sonko jëm nañ ko instrumentalisé mu dugg ak devant deux témoins dont l' un et bougan ngay dani mu waxaat ko fa bu ma kenn arrêt bu kenn woo yaa ngi dégg mu ne moom devant bougan mu wax ni daf ko doog ba man bu nit fanalee bopam nak dang koy assumer parce que ba ma koy wax moom mo xam à quelle fin c'était mais moom moo wax ni doog na Adji ba tok ci ko